Euh, jàpp nañu euh, le 2 juin pour la tenue des élections moom la ñu proposé euh, sama question mooy ban xalaat nga am ci li nga xamante ni moo di dialogue bi sachant que candidat yu bëri dañ ko boycotté. waaw man d' abord ku xam moo xam ne je suis un report parce que mosuma gëm ne report Sénégal tollu na foo xamante ne dañu war a reporter ay élections c' est ma conviction personnelle je le dis partout. parce que lu tax ñu reporter élection Sénégal tollul woon foofu parce que tey l'avenir nous a donné raison nous les anti-report mooy lan dañoo neewoon ne dafa am guerre bu ñu guerre conseil constitutionnel jàpp ne am na candidat yoo xamante ne dañoo guerre surtout demoon nañ sax ba viser directement notre candidat de la coalition benn Bokk Yaakaar ne moom moo guerre conseil constitutionnel je pense que depuis depuis PDS loolu lañ doon wax ñun aussi ñu dem jàppale leen ci mais ñu dem ba ci biir jàpp nañ ne France daal di den amul lenn loo xamante ne tey mun nañ ko prouver parce que début bi newoon nañ yor nañ ay ajo yor nañ ay ay ay photo yor nañ ay image yor nañ ay vidéo euh, mais après malheureusement dem mu demee ba ci biir ñu gis ne c'était un un un un un loo xamante ne c'était un acharnement sur une personne c'était un acharnement pour sur une institution bu mu ne ni conseil constitutionnel ñu demaat ba ci cëppaandaw ga mhm. euh, assemblée am lu mu voté muy yokk prolonger mandat président de la république le même conseil constitutionnel bi ñu newoon daf daf ñu dafa ger mhm. même conseil constitutionnel moo xaatib ne këyit bi baaxul kenn mënul yokk mandat président kenn mënul def lii ak lii ñu demaat ba ci biir conseil constitutionnel ne ci biir loolu ne président de la république gis dat adéquat yoo xamante ne pour que ñu mun a dem élection mais dama jàpp bu nekkee ne léegi ñu demaat ñu ne dañuy dem dialogue ci biir dialogue bi man maa ngi woon première journée bi. Mhm. mais lu ma ci gën a met lu ma ci gën a méttiwaat mooy lépp lu ñu mënta wax dañu ne après dañuy demaat tënkuwaat ci conseil constitutionnel fekk ne conseil constitutionnel boobu saaga nañ leen taxe nañ leen de tous les noms wax nañ lu nekk mais ñoom ñi ñi dajale ci salle boobu di waxtaan ñu ngi demaat delluwaat ci conseil constitutionnel alors pourtant le conseil constitutionnel avait demandé que ñu def élection le 25 février. pour man c'est là le doit on doit camper le débat parce que li ma koy wax toujours mooy euh, nit booy tax booy wax sa bakkan warulaa tax koo wax parce que sooy wax tey ñun ay xale lañu on est des jeunes on est des politiques des acteurs politiques mais li ma jàpp mooy tey ak on a notre part de responsabilité ci histoire Sénégal ci tournoi histoire Sénégal cela n'enlève en rien notre engagement envers le présent cela n'enlève en rien notre loyauté et cela n'enlève en rien suñu gëm-gëm mooy idéologie mooy en tant que de démocrates en tant que des républicains pour man taxaw seetlu ñu demaat ba ci biir dialogue bi lu ma ci gën a def reetaan ñaari mbir on nous parle d'amnistie mhm. mbir bu la. ah da nga jàpp ni dafa reetaanlu dafa reetaanlu ay ay caaxaan la. d'accord beneen mbir bi moo si on nous parle de l'ouverture des candidats muy Karim Meïssa Wade mën a bokkaat. Mhm. donc ça veut dire bi dañoo repousser élection yi. pour Ousmane sonk ak pour Karim Wade donc pour man jàpp naa ne Sénégal moo sut Ousmane Sonko Sénégal moo sut Karim Wade parce que tamit toujours je rappelle l'histoire en 2019 élection présidentielle yi ñu mujj dem on avait 27 candidats qui ont déposé leur dossier il y a eu 19 recalés pour premier tour et au deuxième tour nous avons eu trois recalés te pourtant ñoom Malick Gakou ñu bëri tey ay Ousmane Ngom ñu bëri tey ay recalé ay recalé woon élection bi pourquoi te pourtant Karim Wade mi recalé la woon Khalifa Sall mi recalé recalé la woon. Mhm. et pourtant dem nañu élection sur vingt neuf dépôts laa la wax de sur vingt neuf dépôts y a eu vingt deux recalés en deux mille dix neuf et y a pas eu ce tollé et y a pas eu tout ce bruit. y a de report et c'est les mêmes conditions de rejet ce sont les mêmes conditions yooyu ñoo xamante ne tey moo teguwaat conseil constitutionnel tegaat ko ci ay ndodd nit ak waa DGE ay clé inexploitable ay ay parrainage yi ëpp benn sax rejeté nañ ko fi te boobu le candidat Macky Sall moo dem élection mais dañoo teg juróomi nit mu jàkkaarloo moom pour man y a des non-dits ce report là